Euh, Kouthia ñu ngi lay nuyu. Euh, Khady Faye maa lay fay ah ñu jot information léegi ñu ne ñu Kouthia dafay génn tey tey nii nii nii hôpital. waaw. Mhm. Euh, ma maa ngi sant yàlla avant tout di remercier le bon Dieu. Mhm. et son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tous les saints hommes yi nga xam ne ñu nekk ci Sénégal. Mhm. di remercier samay ñaari waajur. ak sama famille. ak sama toxna. donc euh, yàlla def na tey euh, maa ngi nii euh, juste di di génn fii ci hôpital bi. Mhm. donc may remercier nag ñëpp nag macha allah alhamdulilah rabbil alamin. Mhm. Mhm. d'accord ñu gis benn élan de solidarité bu grave bu am. bi nit ñi yëgee ne Kouthia feebar na Kouthia ngi ci cas grave gars yi commentaire yi ñëpp di la ñaanal loolu ba nga ko yëgee ban sentiment nga ci am. ginnaaw yàlla ak yonent dañuy def nañ seen devoir. Mhm. mais Sénégalais yi def nañ seen devoir. Mhm. may sant yàlla bu baax parce que lii lépp bi ma bi ma sama hôpital la la hôpital la ma fekk. Mhm. réaction sénégalais yi. li ma ci gën a neex notre Kouthia national. notre patrimoine notre patrimoine national. notre Kouthia national prier pour lui ñëpp di ñaan Facebook yi internet ñëpp di ñaan. mais loolu ak sant la. loolu loolu kenn ñaanu ko yàlla mais maanaam sondage la boo xam ne tey euh, euh, ci feebar bi nga mënoon xam ci la ci ci la tollu Sénégalais yi. Mhm, mhm. te pleuré dama tëdd fi ma toog ma jooy. Mhm. parce que man foog naa damay dem nii rek dans le flanc. foog naa man damay dem nii rek. ñi ma bëgg mooy ñi may dalal te waa Kouthia nee na ñu neex émission bi mais xaw ma ne am naa accès a quatre vingt dix neuf pour cent ci biir xolu Sénégalais yi yi nekk Mm-hmm. li may def moom mooy sant yàlla sant sénégalais yi. Mm-hmm. ndax ñëpp ñaanal nañ ma chrétien musulman athée. murit bi te tous les tarixa koo xalaat ku nekkul ci dara xale yu ndaw yi paa yi maire yi tout le monde tous les sénégalais même qui sont pas sénégalais les étrangers qui vivent parmi nous les guinéens ñi nga xam ne dañuy am am am kucca ñëpp ma ñaanal loolu mm-hmm. damay sant yàlla. damay d'accord la question mooy Kouthia da nga corona woon wala corona woo. xam euh, nga feebar la boo xam ne. Mhm. Euh, je pense que ne comme que feebar contagieuse la. Mhm. dafay wàllee. Mhm. buñ la testé nga positif dama nangu ndogalu yàlla. ndax buñ la testé nga positif mooy waa maanaam que yow feebar bi jàpp na la. boo ñu la testé nga négatif mooy feebar bi jàpp la. comme que j'étais positif kay mooy maanaam feebar bi nekk na ci man. Mm-hmm. nekkoon na si man war a wax. d' accord yow fan fan nga jëlee feebar bi wala yow xamoo ci cas communautaire yi la ñu. pour ma wax ne fan laa jëlee feebar bi. Mm-hmm. parce que su fekkee bien avant y' avait un de de Ba qui s' appelle Bakar euh, Bakary Cissé. Mm-hmm. ko presque commencé engagé. di bind naan fii ma ne leen c' est pas important ñu xam kan moo feebar TFM. ñu naan TFM am rek am nañu cas mais dama génn def benn vidéo. ne leen c' est pas important ñu xam la personne. di am TFM feebar bi. nañu ñaanal ba pare les journalistes tamit dañu am solidarité la presse. Mhm. am na yoo xam ne il faut nga nga sóoraale ko parce que il dafa am famille am lépp. Mhm. te feebar bi xëy na sénégalais yi comprendre ñu ko socialement. Mhm. mën nga koo am ñu génn di la daw kon dënnu. kon dafa am loo xam ne dañ ko war a suturaal suñu bopp suñu biir. c' est ça mais man euh, je pense que ne euh, lu lu li ma dal. Euh, dal ay quelques membres du groupe Futurs Médias du wax maa ko indi. du ma ne dañ ma ko fa wàll du ma ko jiw kenn dama naan yàlla la dogalu yàlla la. Mhm. cas communautaire importé exporté cas rencontré yooyu yëpp du ma ci dugg. mais testé nañ moom positif maa ne xam nga yàlla parce que tamit euh, xam mhm. yi. il xam ne. Mhm. parmi les parmi les euh, quatorze millions sénégalais yàlla moo jënd ne ku caa dina dina am tur bu tudd Kouthia dina dugg ci xolay sénégalais yi dinañ ko bëgg. Mhm, mhm. ma sant ci yàlla waaw léegi yàlla ëllëg ne quatorze millions sénégalais te Kouthia dina bokk ko yëg kon damay santaat yàlla pourquoi man mu nekk bu positif ma sant yàlla bu may daw. Mhm. waaw waaw. d'accord léegi euh, ñu jékki jékki saa yi tamit dégg ne Kouthia mi ngi ci cas grave parce que dafa am problème cardiaque ak euh, problème euh, diabète ñu ne yaa ngi en réanimation est information boobu tam amoon na. parce que Seydina Mohamed yàlla rek moo xam. waa kay man diabète ma yi ñuy wax yooyu yëpp dara mais des fois damay comprendre la presse euh, dañuy bind des yoo xam ne c'est juste pour euh, mettre en danger nit ki il faut ñu sóoraale tamit ah, dara il faut ki xale yi dama nekk ci préparation génne bi dégg nga yaa ngi dégg dara yooyu mm-hmm, mm-hmm. que mën naa la reprendre dans cinq minutes ma dugg ci oto nga xam ne damay gën a am euh, autonomie autonomie que ah waaw am tamit sama beneen xarit Serigne Fall Mbacké mm-hmm. moom tamit il veille à moi mënuma lim di bàyyi mais dama la bëgg a xamal ne chrétien musulman athée. Mm. Sénégalais lambda taalibe xale bu ndaw daf nañoo benn vocal boo xam ne benn xale bu ndaw boo xam ne dafa ne papa dégg nga Kouthia dafa seer papa yàlla na Kouthia tane dina tane de. Mm-hmm. xale bu am quatre-vingt-cinq ans. Mm. waa ki nga xam ne da doon julli stress nit ñi docteur Sénégal yi digg dix-huit heures à dix-neuf heures kii faj Sénégal yi bu feebaree ñu bëri dinañu am lu leen jaaxal moo tax yàlla dellu si waat na ma damay sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin Fatick euh, traité bi. d' accord donc donc fatigue fatiguement moo nekkoon ci yow mais est ce que yaa ngi ci ci cas grave yi. non nekk ci cas grave mosuma nekk ci cas grave maa sant yàlla bu baax euh, parce que bu mu nekkoon ci cas grave yaakaar naa e kon di euh, yóbbu ñooñu du ma fi bàyyi mais ne naa la ñaanu Sénégalais yi. Mm. ñaanu Sénégalais yi ñaanu samay waajur ñaanu euh, toute la population sénégalaise ak ñu nekk ci diaspora bi tax euh, na même bu ma nekkoon fii cas grave yi yàlla dimbali na dégravé cas yooyu <laughs> sama cas mhm. yàlla dégravé na sama cas parce que euh, vraiment euh, lii mooy Sénégal Sénégal lii mooy dëkku Sénégal lii mooy waxtaan mooy rumeur mooy coow mais loolu yëpp sant yàlla na parce que am na foo xam ne liñ ma tuddal loolu ay Kouthia mu ngi ci cas grave yi moo taxoon ba Sénégalais ñoom ñëpp ñu tiit tiitaange boobu moo tax ñoom ñëpp ñu daal dajaloo nekk benn def benn say pour pour pour pour ñaanal ma bu fekkoon ne dañ ko jël à la légère peut-être nit ñi dañ ko jël à l'importance parce que am na fi ñeneen ñoo ne dañ fi te peut dañ ko jël kon kon Sénégalais lambda mais fi ñuy yóbbu affaire bi côté à dafa cardiaque dafa ci jàmm ci cas grave yi est-ce que yëpp daa damay bàyyi xel te loolu dama ci sant yàlla bu baax euh, ñu ko euh, parce que ñoom ñoo tax peut-être affaire bi boo xam ne egg na foo xam ne sur le plan national international sama famille euh, sa kilifa diine yi Sénégal lam daay ñëpp daal damay ñaanal. d'accord léegi waa groupe Futurs Médias ban taxawaay lañ amoon ci feebar bi. non non non taxawaay discrétion. Mhm. taxawaay boo xam ne bëgguñu woon tamit appuyer li nga xam ne moom mooy li nit ñi Mm-hmm. boo xoolee dans toutes les émissions dañoo garder le silence. Mm-hmm. te man dama adapté wu ci loolu parce que dama ne nit ki euh, euh, feebar nit ki euh, feebar la rek jarul nga ki nga ci benn yoon nit ñi yëg nañ ko mais amul problème mais lii la yàlla bind lii la yàlla wax ne Kouthia il faut feebaram nit ñi di ci wax dama koy nangu. Mm-hmm. damay sant yàlla même bu doon ne Kouthia il est dans le coma Kouthia a contaminé tout le Sénégal dama koy nangu. mais yàlla xam na ndax man dama compté ni war a compté bu baax damay nangu TFM nag salut jërëjëf. le le patron bi woo na ma le directeur woo na ma le le directeur le directeur woo na ma et ñi ci fekk ñëpp nag yeneen directeur yëpp woo nañ ma daal di may defal ma kontaan ci loolu te it taxawaay bi rafet na trop waaye tamit description rafet na trop waaye lu ci bëgg am daal vraiment ñoom seetaan nañu. léegi euh, par rapport ak aussi dégg dégg naa dafa am euh, ñu ñu dégg de cas décès dafa am ñi naan Kouthia la du Kouthia ba nga jot ci ay appel est-ce loolu tam dëgg la. yaa ngi nii di <laughs> euh, ngi nii di mhm. ci kaa des ay des mhm. xam nga mais yooyu yokk yooyu ñu doon yokk noonu la di bind ay décès daa kaa grave moo tax nit ñi tiitoon doy egg ci yàlla suñu borom di ma ñaanal mais loolu jant la. Mm-hmm. xam nga maa la ko wax léegi nee naa la bu ko gars yi banalisé woon nii. Mm-hmm. xëy na du mu am accès ci yenn prières yi. Mm-hmm. mais niñ ko médiatiser gravé ko noonu moo tax sénégalais yi tiit te moo tax ma xam sénégalais yi fan nañ toog ci man loolu ab cant la. sant yàlla sant yàlla sant yàlla sant Seydina Mohamed sant tous les hommes saints. église bi. monseigneur cardinal Théodore a Sarr. tous les marabouts yu nekk Sénégal ñëpp ma woo toutes les partenaires religieuses ñëpp ma woo. Mhm. sama papa sëñ Mbaye Soumane Sow yëkkati na téléphone am woo directement. Mhm. ndax xalifa général day Tidiane woo na ma on a parlé plus de dix huit minutes. Mhm. waaw am tamit sama beneen xarit Serigne Fall Mbacke moom tamit il veille à moi mënu ma lim di bàyyi mais dama la bëgg a xamal ne. chrétien musulman athée. Sénégalais lambda taalibe xale bu ndaw xam ne benn xale bu ndaw boo xam ne dafa ne papa dégg nga Kouthia dafa feebar papa yàlla na tane dina tane de. Mhm. xale bu am quatre-vingt-cinq ans. Mhm. waa ki nga xam ne da doon dindi stress nit ñi docteur Sénégal yi du dix-huit heures ñu bëri dinañu am lu leen jaaxal moo tax yàlla dellu si waat na ma damay sant yàlla. d'accord léegi euh, nan ngay sensibiliser sénégalais yi par rapport ak maladie bi yow jaar nga ci xam nga li ci nekk euh, lan ngay wax sénégalais yi par rapport ak corona. non loolu moom dama ciy bañ a dugg dëpp mhm. euh, peut-être dinañ ko gën a yaatal ci beneen waxtaan. Mhm. mais li mooy. mooy lii bu ma ko génn woon mais maa ngi dem sama kër maa ngi sant yàlla maa ngi nii di ñibbi yaa ngi ma jël en interview en cause loolu maa ngi nii di ñibbi di sant yàlla mhm. yàlla moo ma ko tegoon bu ko yàlla teg jéemal ne natt la sëñ bu taxaa Bassirou Mbacké xarit général pour murid yàlla fi yàgg te wér wax na benn wax bu am mhm. dafa wàcce virus bi jox ko ay ndigal moom fu mu war a jaar mhm. dañ ci war a jàngat jàngat bi mooy lan la football amul defee àdduna baa ngi dox. musique mhm. amul àdduna baa ngi dox. Mhm. yaa mhm. concert amul àdduna baa ngi dox caaxaan amul àdduna baa ngi dox kon ñu mun nañu dund sans mbir yooyu. kon yàlla daf ñuy yónni pour ñu am delluwaat suñu xel ci yàlla. man de li ma ci jàngat mooy retour vers Dieu et sécurité devant Dieu sëggatu delluwaat suñu borom. c'est mm-hmm. pas parce que ku mu dal rek yow da nga da nga da nga nekk caay caay de wala mm-hmm. da nga dem bés yu bon de déedéet mm-hmm. mais yàlla day tànn ay nitam waaw pourquoi yàlla tànn Kouthia Kouthia est populaire pourquoi mu teg ko feebar bi parce que du ñu woon ne li dal Kouthia mën naa dal Sénégalais lambda man dama ne jeexaat la yàlla dama ci tànn dem naa ko xeex ko ba mu jeex wallahi wallahi asim xeex naa ko ba mu jeex tàkk dem naa ci sama doole mooy joxe naa sama loxo pikiir nañ ma def nañ ma ay prélèvement lu ne def di ma ko ba mu génn ci jàmbaarte kon man dama demoon ci xar sant naa yàlla ak yàlla sax yàlla moo may yebal ci ñi nga xam ne dañuy war a fës ci xeex bi pour nga xam ne leen lii am na mhm. yàlla dafa boole ci ñi ñu napp pour Sénégalais yi ne ah comme que feebar bi bàyyi la ku jaar mais Khady Faye comme depuis kañ laa commencé xeex corona mhm, mhm. depuis début bi dama depuis début bi sama actualité sama sama sama sama sama sama sama thème yëpp dama ko actualisé ci corona di mm. xeex man ko dinañ la daan mm. yow corona yaa ñu lakkal sama <laughs> benn waaye dama woo la ma ñëw corona daan na la yaa doon corona mi ngi koy def ba daan mm-hmm. mais daan na la ma ne ko waa ba tey xeex la mm-hmm. ma jël tous les hommes politiciens lancé la woon ñu def message a ah, ba maa li suñu ñëpp laa imité pour ñu wax ci corona bi mm-hmm. waaw fekk comme loolu la rek kon man tey xëy xeex corona ba corona xeex ma ma ma jóg man tamit jàkkaarloo xeex ko daan ko na man maa ko daan lépp ma daan ko bàyyi génnaan naa naa ngi sant yàlla. d' accord léegi à quand la prochaine sortie vidéo de Kouthia loolu la ñëpp di xaar. léegi euh, euh, léegi comme que dama nekk nii di soog a génn xam nga yow li may wax loolu sa dafa bëri mais mhm. <laughs> yow o xarit nga te yow euh, sama xarit nga sama séeréer nga te nag maa taw mhm. boobu léegi déggu ma la mhm. léegi wax dëgg yàlla li may def moom mooy jox la lay a su peu de temps boo xam ne dinaa génn. def benn point de presse bu gën a yaatu. Mhm. xam nga li xam nga li internet la. Mhm. te sama sama papa yi nga xam ne amuñu whatsapp ak euh, fan si Koudia bi nga xam ne dafa nekk mbanaxum te amul whatsapp. Mhm. te mënul dugg ci euh, réseaux sociaux yi suñu defee point de presse xam ne dañ koy def euh, Sénégal ñëpp jox ñu jox ko suñu laajte yi laaj xibaar ñëpp jot ci wax dëgg yàlla dina gën a mën a yaatu moo tax incha allah damay noppal ko fan rek après génn benn benn point de presse pour ci. ci li nga xam ne moom mooy coronavirus ak pollution bi nga xam ne ci laa nekkoon d'accord merci beaucoup ñu ngi lay sant di la gërëm. bu baax une fois di wax ne damay sant yàlla di wax alhamdulilah rabbil alamin je remercie tous les sénégalais tous les sénégalais et aussi les journalistes qui les journalistes ki nga xam ne mhm. site internet yi nga xam ne mhm. dañoo si ci mbir mi mhm. reprendre ñu yenn wax yoo xam ne duñ ko waxee peut être dañu tôt ou tard ku ci abu génne ñoom dinañ rus di jàkkaarloo man waaye nag waaye nag yàlla moo dogaloon loolu